ñu ngi ci éducation comme leen ko waxee tout à l'heure euh, Moussa Sène mi ngi dalal ki dee di Thierno Ndaw président de l'UNAPES Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal ñuy euh, am ay attentes yu nga xamante ne am nañ ko ci nouveau gouvernement bi ak euh, ministère de l'éducation bi nga xamante ne teg nañ ko en place Moussa dañ lay bàyyi rek nga jàkkaarloo waaw Salma di nuyu suñu invité bi nga xamante ni fekk si nañu si plateau bi di leen waat tamit parce que waaw donc monsieur Ndaw yow comme ni ko Salma waxee rek yaay président UNAPES maanaam Union nationale des parents d'élèves ak étudiants ci Sénégal ñu gis ni euh, éducation émission bi chaque année day am ay yëngu-yëngal maanaam yu tar sax sax ñu dem ba découragé mm. euh, mais te ñu gis ni aussi cette fois ci ou bien cette année ci am nañ régime bu bees régime bi tamit fal na ay ministre am éducation nationale lu ginnaaw mm. am na jëwriñ bu yees mm. euh, mu ngi wuyoo ci turu Moustapha Mbambal ah, Guirassy alors euh, mën nañ xam ban jàngat ban appréciation ngeen am ci Moustapha Bamba Guirassy d'abord en tant que parent d'élève jërëjëf euh, Moussa maa ngi delluwaat euh, di leen nuyu di leen gërëm di leen sant di leen jéggulu également ci dérangement bi ak yenn détails yi nga xamante ni des fois ni mata nit doo dana ko def waaw di euh, balu àq ñëpp di baal àq ñëpp di nuyu l'ensemble des parent d'élèves bu bu Sénégal Euh, commencé su ma nuyoo ci euh, la grand le xalif général des Mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké jaarale nuyoo bi ci sëriñ Moussa Nawel suma sëriñ suma xarit mu yegg yeggalil ma ko. Mm-hmm. di siyaare vraiment euh, l' ensemble de la umma islamique. Mm-hmm. di ñaanal sëriñ Maodo Ndaw bu cakalaar yàlla may ko fan wu gudd ak wér. Mm-hmm. di ñaanal ñëpp jàmm. amiin yaa rabbi xam naa ñu dem ci sujet bi rek xam naa. léegi waxtu faj euh, di sant yàlla bu baax ci élection yi ni mu demee nga xamante ni ñëpp amoon na ci njàqare ba àdduna bi yëpp ñu ngi doon ñu ngi doon xaar yàlla def ci euh, la l'exp l'exception sénégalaise wona wonati mëninam ba yàlla def ci euh, jàmm ñu fal. équipe bu bees président bu bees mu indi gouvernement bu bees moom Moustapha Mbaba Guirassy ñu am seet ci ci ci l'ensemble de de l'équipe gouvernementale ay préjugés favorable parce que dañoo présenter un programme ñu ne projet nit ñi adhéré plébiscité projet bi amul deuxième tour dès le premier tour ñu euh, woteel leen mm-hmm. euh, avec euh, plus de cinquante quatre pour cent kon ñooñu liñ doon jaay nit ñi jënd nañ ko gor nag ca wax ja nañ ko jëfe am nañ yaakaar ne danañ ko jëfe ndax am na ñoo xam ne tànn nañ leen xam nañ ne euh, am nañ ci ñoo ay préjugés favorable waaw ministère éducation nationale ministère de l'enseignement supérieur ministère de la formation professionnelle ñoo ñëpp ku ci nekk ay tànneef lañ mm-hmm. ñoo xam ne xamaluñ leen dara loo xamante ni lu lu lu lu naka su doon noonu la. kon te Moustapha Mbaba Guirassy il n'est pas à son premier poste. jaar na fii avec le gouvernement de. Euh, euh, Abdoulaye Wade dellu si waat na fi. éducation nationale nag dafa doon secteur bu compliqué ndax mooy defar mooy tabax ëllëgu réew mi. Mhm. Sénégalais wu bu bu ëllëg. nga xamante ni dañ leen war a tabax ci ay suñuy valeur xool suñu programme xoolaat ko càmbar ko xool def leta de lieux xool programme yi nga xamante ni ak euh, projet yi nga xamante ni ñu ngi ko doon doxal te daanaka bariwut loo xamante ni amal na ci ay njeexitat ñu ñu def audit nga xam fii lañuy commencé ak fii la ñuy ñu ñu ñu ñu ñu jëm mm-hmm. am nañ ci yaakaar euh, ñu jël nag ñoo xamante ni parce que ministre bi rek lañ tànnagum. ministre bi il faut mu am ay collaborateurs également ñu xam secteur bi ñoo xamante ni euh, dañuy liggéeyal Sénégal te yàlla tax. léegi loolu moom mm-hmm. lañ yaakaar ne. Mm-hmm. Euh, yaakaar boobu ñu am. yàlla bu ko yàlla tas. ok ok ñu gis ni tamit moom am ngeen yaakaar ci moom. te li nga wax rek yàlla bu yaakaar taas est-ce que jàpp nga ni euh, ak ni euh, njàng mi amee woon ay jafe-jafe par ci par là est-ce que gis nga ni moom mën na pacifier espace éducation éducatif bi. waaw xam nga euh, éducation complexe na mais lu lu am ci suma suma yaakaar war naa lu lu mën a lu lu lu yomba defar la parce que lu ci bari yëngu-yëngal yi yi am ci secteur bi lu ci bari. syndicat enseignant yi la te syndicat enseignant yi lu ci bari lu ñuy wax bokk na ci affaire salaire te salaire éducation ministère éducation dépendul salaire dépendul ci moom salaire euh, euh, ministère des finance la la la la dépendre donc ak peut-être ay problème mu ak problème mu programme et cetera yooyu bu ñu privilégié waxtaan parce que liy indi problème mooy tànqamlu mm-hmm. tànqam lu baaxul ci kilifa te bul xeep euh, ba xal mun na indi euh, daay donc lépp loo xam ne toq na mu doon problème tàllal sa nopp ñëpp ce n'est pas dit ku wax da nga jëfe li wax mais il ne faut pas être inaccessible am na si ay ministères yoo xam ne buñ leen xasee fal mënatoo leen jot boo leen bindee duñ la tontu man maa ngi actuellement courier boo xamante ni depuis le mois d'août maa ngi koy bind. Mm-hmm. amul sax accusé de réception ministère éducation nationale. ki ko ñoo xam ne yaa leen joboote. Mm-hmm. loolu dëgg du yoon. donc il faut que mu ubbil buntam jël les acteurs associé leen ci impliqué leen ci bu boobaa ku ci nekk xam ne yow kat da ngay jàpp ne mbir mi bu yàqoo ci yow la. boo boo ko jàppee noonu rek da nga def tout pour benn problème ba ñu am nit ki da nga koy nawloo mais boo buggee jël nit ki nekk yaakaar ne moom mu ne moo ne yaa nekk ci koom te yéen ngeen bokk mbir mi mënut a nekk donc vraiment il faut vraiment des concertations larges mm l'implication de tous les acteurs mhm. bu ko defee euh, am nañ yaakaar ne yëf yi dana dana dana jaar yoon surtout que mhm. am na ñoo xamante ni ñu mel ni ku mel ni Dame Mbodj amee kooku il n'est plus à présenter day bañ fa bañ fa fa ñu war a bañee day nangu également bu bu fekkee nangu nangu am na ba ñu defee affaire euh, euh, homo affaire euh, programme affaire homosexuel hmm. ñoom ak ñoom ndooyu ñoo fa njëkk a loolu buñ visualisé woon du du sotti Eh, gouvernement bi dana dana dana ci jéem a ut palanteer bu mu tugg donc ñooñu boo leen amee da nga leen ay da nga da nga da nga may nopp di leen con consulter dañ ne wax l'école de la communauté la communauté c'est les parents d'élèves je rends grâce aux parents d'élèves parents li ñuy def ci école yi mm-hmm. buñ téye woon seen loxo seulement macha allah léegi si ndaw gis nañ ni wax nga ko sànq maanaam ñi ñiy amal yëngu-yëngu ci e, école bi mooy syndicat d'enseignants yi yow nee nga salaire rek la ñuy réclamer est-ce que salaire rek la ñuy réclamer te surtout euh, ñoom li ñuy gën a li tax ñoom ñuy gën a révolté wu mooy dañuy toog ak gouvernement signé protocole d'accord mel ni protocole d'accord 2018 ak 2022 euh, ñu gis ni depuis lors euh, France daal di xëy si syndicat yi li ñu wax est-ce que aussi jàpp nga ni du loolu mooy indil souvent problème bi. waaw nee na néew ma euh, jàngalekat yi salaire rek la ñuy la ñuy kii déedéet dama ne li ci ëpp ci ay revendications bokk na ci ay revendications salariales ak affaire carrière te carrière également dafay impliquer également incidence financière ak nekkuwaay nekkuwaay mooy euh, euh, infrastructure yi continue programme bi et cetera et cetera donc loolu. lu ci bari buñ ko tënkee ci kayit xayma ko ba pare ne dañ jëfee nii lu ci bari ñun dañ koy fekke ñooy doon garant yi mais lu ci bari bu waree yegg si gouvernement bi du ko jëfe donc respect des accords waratu waratuñ toll foo xam ne dañuy casse dañuy grève pour respect des accords loolu def parce que suñu maam yi bu njëkk Seydina euh, dañ daan daje ci pënc mi ku nekk daal di xas wax waat kenn du ko bind mais dañ koy jëfe actuellement maintenant da ngay da ngay ñëw wax bind signé doo ko respecté alors là je j'invite le gouvernement à ne signer aucun accord qu'il ne pourrait respecter parce que loolu bopp du yenu wala waaye xam na lu lu bët yu du yenu waaye xam na lu bopp attan est-ce que c'est pas le kon kii fi nekk ku bees commencer par euh, waxtaan ci protocole d'accord yi nga xamante ni mooy pomme de discorde bi. xam nga stratégie bu nekk mais waxtaan moom mun a ñàkk parce que mbir bu ñu la ko joxee bees d'abord da nga def l'état des lieux am na ay programme yoo xam ne ak ay projets yoo xam ne redondance la ci biir ministère ba c'est pour rek euh, ut ay seeni nit euh, jox leen lekkukaay yooyu dafa war a dëñ loolu bu ñu defee euh, l'état des lieux danañ xam ne loolu eh, amul amul efficacité amul efficience bu ñu defee également l'état des lieux des accords danañ xam ne lii dem na lii dem na passif bii moo fi des bu ñu defee l'état des lieux du projet de résorption des abris provisoires jusqu'à présent il y a des abris provisoires à Dakar dans le département de Rufisque dans le sud dans le sud-est am na ay collèges yoo xam ne école bi yëpp abris provisoire la alors qu'il y a des milliards qui avaient été injectés pour ça yooyu yëpp dañ ko war a càmbar xool fu mu toll ak gab bi lu mu demee ñu ñu loolu yëpp bu ñu paree nag woote waxtaan large euh, euh, vraiment euh, discussion bu large inclusive nga xamante ni ku ci nekk da nga ci gis sa bopp waxtaan ci indi sa contribution bu boobaa nag ñu may leen également répit ñu may leen temps ñu jëfee parce mun mënuñ ne yaram bu màgget bare rek lépp dana saafara wu ta nekk il faut un temps à tout may leen tuuti état de grâce bu ñu waxtaanee ak ñoom tënk ñu xool ndax dañ jëfe liñ tënk donc j'invite vraiment mhm. les syndicats d'enseignants à comme ils avaient l'habitude de le faire à continuer d'être vraiment des républicains et vraiment à donner un état de grâce à ce nouveau Euh, ce ce nouveau régime. pour que ñoom ñu jéem a. mais secteur waaw secteur éducation moo nekk cëslaayu réew mi est-ce que loolu aussi mën na nekk loo xamante day day xaar parce que wax nga ko sànq infrastructure yi euh, gabu enseignants yi yooyu yëpp tam aussi. nga bëgg a patienter tuuti est-ce que loolu du indi aussi. waaw euh, mais yaram buy métti lépp lépp mënul sotti loolu en même temps. il y a des priorités et des surpriorités bu fekkente ne waxtaan nañ def état des lieux. danañ classifier les choses les le les fan lay war a njëkkee ak la fan moo ci war a topp et cetera et cetera loolu yëpp dañ koy waxtaanee gis nga buñ ko waxtaanee ba ànd ci vraiment euh, euh, nee nañ réeroo amul ñàkk waxtaan moo am. en tout cas ci seeni programme ci campagne bi dégg naa leen ñuy wax waxu mbirum abri provisoire yi nee nañ ko dinañ ko jël def ko euh, lu leen ñeel lool lu am solo ci ñoom wax nañ ko dinañ ci indi ay changement di d'ici trois ak quatre ans la ñu wax euh, definitivement dinañ fexe ba Sénégal dootul amati abri provisoire wax nañ aussi ci éducation bi euh, proprement dit ci langue bi ñuy jàngalee mais aussi ci yan anam la ñuy jàngalee matières yi nga xamante ne aussi moom la ñuy jàngal ndaw waaw loolu xam nga loolu euh, ci seen programme la nekk. Mhm. Euh, programme boobu il faut que buy defee l'état des ba pare. ñu mhm. woo vraiment de large concertation waxtaan ko ak nit ñi. jigéen ko partager ak nit ñi. bu ko defee lépp loo xamante ni d'accord nañ ci ànd nañ ci parce que il faut que ñu dellu si waat à l'éducation de no valeurs. Mhm. parce que yu bari ñu ngi am c'est parce que nit ki jàngaluñ ko mooy kan xamaluñ ko mooy kan. tàggatuñ ko ci ay làngam ay kàllaamaam. bu ko defee euh, kenn du ne kii nulaar la. Mhm. parce que lam nàmp ci lañ koy jàngal. ak yeneen ak yeneen xale bi si complexe en fait. très bien parce que yow boo làkkul français rek. absolument xam nga alors que mun nañ la ne boo boolee boo jëlee benn dolli ci benn ñaar la lay jox nga comprendre. bien sûr tu n'es pas obligé de dire un plus un égale deux. par exemple Seydina monsieur le maire mu ko doon wax léegi. Mhm. Euh, ñun ñii ñëpp kenn kenn ci jaarul école privée. et on est fier d'être passé par l'école publique mhm. mais malheureusement euh, maa ngi jéggulu ci kàddu yi mais même bu jaaykatu caaf bi dama dafay foraatu mhm. pour yóbbu doomam école privée parce que instabilité bi la ce mhm. n'est pas parce que école privée euh, enseignants yi ñoo dàq jàngale loin de la mais c'est parce que au moins y a la stabilité au moins y a pas de grève au moins am na surveillance au moins am na sécurité au moins am na salubrité mais école boo xam boo xam ne boo demee xale bi bu waree génn toilette dem ca kër ga euh, à côté avec tous les dangers amul robinet amul ndox amul électricité boo doo connecté à internet et cetera mais ça au vingt-et-unième siècle c'est inadmissible mm -hmm. c'est inadmissible alors que école yu bari amul loolu mm-hmm. donc l'école doit être l'école amie des enfants mm -hmm. mairie yi moom élection mairie yi daal. Euh, ah, li nga wax nii dëgg la de les maires ne ah, parce que ñoom yaakaar ne seen liggéey daal mooy jox ay fourniture quoi. te fourniture si sax daju daju fépp. encore que mairie de Dakar ba léegi ren dara benn cré dugalul ko ci école yi benn cré avec les milliards dont on parle. benn kere dugal ko ceeb. gis naa benn jàngalekat bu ne ma moom buy xëy si mooy jënd kere mooy indaale. donc mairie daal je ne am na ci ñaari maire yoo xam ne on les ne cessera de mm. mooy Jean Baptiste Diouf bu Grand Dakar. ak Tamsir Gueye bu Dia. Mm-hmm. nga xamante ne ñoom. en dehors de fi leen compétence bi yemale. Mm-hmm. dañ ko outrepasse dañ ko jégg parce que avec leur point leur propre moyen. Mm-hmm. di def sax di def ci collège yi. alors et Jean-Baptiste Diouf depuis deux à trois ans bloqué nañ ay ay euh, xaalisam mhm. yi waroon destiné ci école yi nga xam ne courant ndox euh, même euh, xaalis bu muy yokkal enseignants yi pour que ñuy def ay cours de renforcement depuis deux ans trésor daf ko bloqué ba léegi jotu ci donc ça ce n'est pas normal mhm. alors que l'État dafa ne éducation bi école élémentaire yi c' est gratuit. mu jël ay koppar boo xam ne dafa monter un commité de gestion par école. par communauté bi moo koy gérer ñu ñu ubbi compte ñu leen ko fay verser mais ñaari at la ko def ñettul depuis deux mille 2018 amul benn dërëm bu jógee ci état bi dugg ci école élémentaire yi alors que école élémentaire yi ñu ngi continuer di fonctionner. fonctionner gàcce ngaalaama parents d'élèves yi. parce que ñoom ñooy école bu ci bu ci même bu bu amee. Euh, euh, femme de charge bu mairie ba indi parents yi ñooy mobiliser wu di jënd détergent. di ko yokkal la la muy foraatu. di fay muy bale et cetera. kon bu fekkonte ni dañ croiser les dégg na nguur gi euh, de bu kenn joxe dara suñuy doom yi daanaka feebar nañ ba ku ci nekk. Euh, ñibbi ñibbi sa kër. donc ñu ngi dugal seen loxo di ci école élémentaire yi ñu ngi dugal seen loxo ci collège yi bien que wàññi nañ inscription yi mais ñoom daje nañ ci seen biir parce que état bi deful ay mesures d'accompagnement parce que bi mu wàññee te soxla établissement yi xam nañ ne du jeex. état bi dafa waroon na def ay mesures accompagnement yokk budget bi école bi mais defu ko mais kon ñun xam nañ ne parent yi def yi seen doom seen seen njàng moo leen soxal ñun ñu daje suñu biir waxtaan def assemblée générale ku ci nekk xool looy yokk ca la état ba décider pour que école bi fulandi budget pour que mu mu mun a fonctionner. mais est seen intervention yooyu ngeen def ci école bi est-ce que fàtte yéen a koy def aussi ci côté université yi. parce que gis nañ tamit étudiants yi yéen a leen boot parce que union des parents d'élèves ak étudiants ngi la ñu wax mm-hmm. te gis nañ ni comme li ko monsieur le maire waxee am na maire yi maire yoo xamante ni bon dañoo croisé les bras au lieu ñu assister seen euh, étudiants yi à travers subvention subventions mais dañuy préférer jëflanteeg ñoom ba juste ba sax mën na am njeexital ci seen jàng est-ce que aussi intervention yi ngeen def foofu noonu yéen a koy def jusqu'à euh, niveau euh, maa ngi profito di gërëm di sant le recteur de l'université de de Dakar euh, euh, monsieur Mbaye mhm. euh, moom vraiment ba mu si magistère am la ñuy doog a sentir ne les parent d'étudiants am nañ njëriñ parce que dañu yaakaaroon nekk xale bi bu defee demee ba doon étudiant daanaka moom majeur na amatul kilifa alors que même le président Bassirou Diomaye Faye soxla na kilifa kon moom impliqué nañu ba bokk nañ ci assises yi nga xamante ne moo amoon ci université ba bokk nañ ci également ci yenn waxtaan yoo xamante ni la la la état bi namoon te ñeneen doon pousser pour que ñu ubbi coûte que coûte université te ñun ànduñu woon ci te amoon nañ ay raison yàlla def na ubbi nañ université te jàmm rek ci am uni ubbi nañ kud jàmm rek am donc Euh, loolu buñ ci impliqué wuloon ñu bàyyee euh, gouvernement bi ak euh, les autorités universitaires ak étudiants yi ak peut-être yenn yenn yenn yenn nit ñi amaana loolu loolu du am donc yenn mairie yi également yi nga xam ne dañu war a accompagner étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi loolu bu baree bari des na ñu ci bari nag dañ koy politiser alors que ndimbal bu fekkee ne da nga kii am condition yoo ci gàcc on préfère ñu nga bañ ko dimbali ndax dimbal na koy def te yàlla tax mhm. parce que doom bi jógee Fissel ak doom bi jógee dakaar ak doom bi jógee euh, Fengolimi doom Sénégal lañ ku ñuy jëriñ ëllëg kenn xamul ak euh, kon mhm. dañ dañ dañuy dañuy def te yàlla tax ensuite euh, ñoom itam ñu ngi nemmeeku li nga xamante ni Euh, état bi dafa war daf ko warlu ak ñoom parce que am na am na ay fonds yoo xamante ni état bi daf leen ko dafa transférer de quelques quelque aspects de du domaine de l'éducation donc bu ñu ko transférer ku ku ku ku yokk xawma euh, ku yokk lan xawma yokk yokk cere yokk ñeex voilà donc boo boo la boo la indee ay soxla. il faut nga indi loo xam ne dañ ko koy fajee. Mm-hmm. mais état bu lu bari également du ko jëfee donc. vraiment faj nañu euh, rapidement. Mm-hmm. Mm-hmm. état bi je pense que euh, on aura un état responsable. état boo xamante ni lépp loo xamante ni euh, wax na ko dana ko jëfe te éducation nag priorité la. réew mënut a développé wu. te éducation am sooxee mun a nekk. de de toute façon aussi ministre bu bees bi ministre de l'éducation comment il s'appelle encore. Girassi Girassi man si administration bëgg naa cee gis ku ci mel ni Dame Mbodj. dana am bu neex yàlla la ci gis waa ji nu mu tudd fi ñu invité chaque jour Youm. Hmm. ay ay ay kii ndóoy non parce que yoo xam ne nii dañuy yàgg a porté ku mel ni ndóoy di xeex di xeex ku mel ni dàmbooj ba ci yéen parents d'élèves aussi il faut ngeen nekk fa c'est-à-dire que mbir yi bu ñu ko yemale kese simplement parce dafa benn ay inté ay technocrates yu la wër ak ñoom seen mais da ngay jël acteurs yi école du affaire ah. administration administration mm-hmm. c'est ça loolu ci la bari di di di daanoo école mbirum communauté la communauté nag bul fàtte ne communauté professeur d'université bi mu ngi ci. Mhm. ba gardien bi. nga la communauté renferme toutes les potentialités. voilà le sort de Dame boobu sax. ma jëm ci témoigner tuuti. Mhm. xam nga sama info école bi may def rajo. waaw benn mercredi laa ko woo ma ne ko deux audios laa kii quoi ma proposé ko sujet. mu ne ma Moussa ndax loolu rek nga soxla ma ne ko waaw mu ne ma ndax loolu rek nga soxla ma ne ko waaw. mu ne ma dëkk baa ngi toj nga naan ay na nga yaa ngi loolu fële mbuur di wax ci kii programme bi eh, affaire sexuel bi affaire góor ma dóor ma bu mu defee audio boobu mm. le lendemain moo toj dëkk bi ñëpp ñëpp ñoo ko reprendre mm. ah, c'est ça ñëpp ñoo ko reprendre mais justement rek monsieur Ndao pour justement ñu xaw a kii dafa amoon ñaari kii mais dama koy boole benn waaw euh, tey gis nañ ni c'est problème wu par fauteuil parent d'élève bi ba léegi c'est pas encore clair ndax voilà léegi au-delà de tout ça également recrutement enseignants yi nga xamante ni moom ministre bi fiy génn def na ko est-ce que mën nga ñëwaat justement ci ñaar yooyu. ban euh, recrutement yooyu recrutement yooyu ñoom bu ñu sañoon. Mhm. recrutement hors concours la. te recrutement dañ ne woon dañuy dañoo bëgg a relever la qualité des le niveau des enseignants. Mhm. ba concours euh, crème bi. c'est l'un des concours les plus sélectifs. bu toogee nag ba ñu ja ci élection yi ñu def recrutement politique kooku. te ay tappale la nañ ko nañ ko dindi hmm. beneen bi mooy euh, euh, xam nga association mun naa am mun ta ñaari président loolu moom euh, ala kulilaan mun ta nekk bon ci dynamique bii nii ak ministre bu bees bii nii kan la war a mën a déglu ak ministre bu bees bi dana joxe dana def dana dana dana dana jëfee dëgg parce que ministre bu bees bi du ànd ak troisième mandat Fane il bénéficiait de complicité d'agents qui étaient au ministère de l'éducation suma kuréel yëpp dañ koy doon bloqué depuis décembre ministre bu bees bi du defee noonu mhm. maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di invité euh, monsieur le maire parce que mhm. euh, euh, Kër Massar unité 10 mhm. yàlla mi dara tawul 2019 laa fa toxu mais ci seen mbaax mbaax imam professeur Moussa Samb ak délégué Cissé nuyu naa leen dañuy installé Euh, conseil de quartier dañ ma fal conseil de quartier. ñu koy couplé ak euh, installation wu délégué. allah le le le mhm. le 20 avril. lu am solo la di euh, la yal yàlla borom bi jàppale. monsieur le maire. incha allah monsieur le ñoo xew. incha allah damay dem. a dem. di la jaajëfal ceex na ndaw kàddu yi amoon na solo bu baax a baax yal leen borom bi jàppale ba ministre bu bees yi ñëw. Mm-hmm. Euh, képp ku yëngu ci wàllu éducation rek déggoog moom te gis ci sa bopp Moussa yow tamit sañse bi rafet na. ah waaye bii miin na na fi du benn yoon du ñaar mm. yoon la fi ñëw en daal waaw di profité rek di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak di ñaan tamit comme euh, ñëpp yal na daal ñu koy fekki ay ati ati te Salma bëggoon naa ci yokk tuuti ndaxte mooy li ñuy wax euh, amicale mhm. des élèves des étudiants ressortissants de Diobass ñoom tamit problème mu subvention bi ñuy wax nii moom moo leen dal parce que seen maire muy Alioune Sarr mhm. ndax seen maire yi ah non man pour man maire bii di Alioune ak euh, Mamadou Thiaw mu nekk maire Tasset ak maire commune Noto. depuis lors depuis lors def naa ko sax info école mais jusqu'à présent la situation n'est pas encore réglée kon donc dañuy ñaan. ñoom ñu gëstu étudiants yooyu. noonu mhm. au fait quoi parce que. seen njaboot la ci njaboot gi lañ bokk. donc euh, ñu jëli tout suite. lii euh, lii Koumpentoum ba léegi. Mhm. pareegut depuis des ans. nañ ci am yaakaar yàlla baax na gouvernement bi nañ leen bàyyi xel bu baax loolu la sàkku ci yéen di Au revoir.